sutura la te dëgg yàlla euh, sant yàlla ci lim nu defal euh, nag li ma ci tiit mooy saa buñ ko annoncé ministère la santé de l'action sociale ce lundi 6 juillet 2020 et qui a reçu des examens virologiques ci 838 tests réalisés, 78 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,31%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 52 cas contacts suivis par nos services, 26 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Touba 3, Khombol 2, Plateau 2, Thiès 2, Sangalkam 2, Yoff 2, Almadi 1, Fan Guédiawaye 1 Joal 1 Kaolack 1 Liberté 5 1 Liberté 6 1 Mbao 1 Mbour 1 Ngor 1 Parcelles Assainies patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 44 cas sont pris en charge dans nos services de réanimation. Trois nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos services ce dimanche 5 juillet 2020. L'état de santé des autres patients reste stable. À ce jour, 7 478 cas ont été déclarés positifs, dont 4 909 guéris, 136 décédés est donc 2432 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances au disparus et exhorte les populations au respect des mesures individuelles et collectives qui impliquent entre autres le respect des mesures barrières, c'est-à-dire respecter une distance d'au moins un mètre si on est dans les lieux publics ou lors des rassemblements, le port obligatoire de masques, c'est pour confiner, je vous le rappelle, le virus, le lavage des mains pour éviter de porter le virus au niveau des muqueuses, notamment des yeux, des narines et de la bouche. Enfin, le ministère de la Santé et de l'Action sociale recommande également aux populations de fréquenter, comme avant, les structures de santé et notamment pour ceux qui sont suivis pour les maladies chroniques, de respecter leur traitement et les rendez-vous prescrits par les prestataires de services ou les médecins. Pour nos enfants, c'est de poursuivre la vaccination conformément au calendrier vaccinal en vigueur. Et enfin, pour les femmes enceintes ou les femmes ayant accouché, c'est de respecter les consultations prénatale ou les consultations post Je vous remercie. Assalamu alaikum. ma jottali leen communiqué bi bàyyeekoo ci ministère de la santé et de l'action sociale tey altine juróom benn fan ci weeru juillet bi ñu nekk 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat yi may waaj lim ci juróom-ñetti téeméer fanweer ak juróom-ñetti test yu ñu def juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif ci ñooñu am nañu juróom fukki cas ak ñaar ñoo ciy cas contact ñaar fukk ak juróom-benn ñoo ciy cas communautaire cas contact mooy ñi nga xam ne ñoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji ka communautaire mooy ñi nga xam ne fiñ ko jëlee dañ ko xamuñu ku leen ko wal ci ñooñu nag cas communautaire yi Touba am na ci ñett Xombol am na ci ñaar Plateau am na ci ñaar Thiès am na ci ñaar sangalkaam am na ci ñaar yoof am na ci ñaar Almadi benn Fann benn Géejawaay benn Joal benn Kaolack benn liberté 5 benn liberté 6 benn mbaaw benn mbuur benn ngoor benn Parcelles Assainies benn Patte d'Oie benn Saint-Louis am na benn fanweeri malade ak juróom-ñeent wér nañu tey te incha allah dinañu génn ñeent fukk ak ñeent ñoo nekk ci service réanimation yi ñett doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan niki démb dimanche juróomi fan ci weeru juillet biñ nekk ñeneen ñi ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk senegal jot na wàññi juróom-ñaari junni ak ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu nag ñeent junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent wér nañu téeméer ak fanweer ak juróom-benn ñoo ci ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak ñeent téeméer ak fanweer ak ñaar ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi massawu mbokk yi nga xam ne dañoo am ñu ñu ñàkk ci feebar bi te aussi di ñaax askan bi ñu gën a sàmmante ak li ñu digle yi ñu digle yooyu nag li ci ëpp solo mooy li ñu woowee respect des mesures barrières mooy maanaam nit ñi foo munte dem yaa xam ne ci bërëbu yi fi nit ñi di daje wala ci mbooloo na nga fexe sa diggante ak ki ngay dendal mu mot a lu tax mètre parce que su motee mètre dañoo am lu ñu wóor nekk que virus bi mooy maanaam doomu jàngoro ji mënul jóge ci walla mu jóge ci kooku ngeen wàllante masque bi aussi lu am solo la parce que masque bi mooy confiner virus bi su nit ñi génnee tamit su dee mënuñu walla terewuñu nit ñi génn mais soo jëlee masque bi nga def ko tamit virus bii du génn bay laal keneen maanaam foo toll aussi di raxas say loxo raxas say loxo lu tax mooy ko doomu jàngoro ji même su dee ñëw na ci loxo bi du mun a dem ci gémmiñ ci bakkan wala ci bët kon du la indil feebar léegi nag ñu ngi ñaaxaat aussi askan wi ñu gën a sàmmonte ak yenn digle yi yi nga xam ne képp ki nga xam ne yaa ngi sooxaale ak beneen feebar te nga war a dem ci dispensaire yi walla ci hôpital yi nga toppatoo sa rendez-vous toppatoo rendez-vous su fekkee ne yow maanaam da nga yore feebar bi nga xam ne yaa ngi docteur mu ngi lay topp walla yaa xam ne képp ku lay traité mu ngi lay topp di la wax ne que jëlal garab bi ngay jël sa garab rendez-vous bi su jotee tamit nga dem xale yi buñ leen fàtte ñu ngi nekk ci ñu nekk ci programme de vaccination war nañu continuer di ñàkku ba ñàkk yépp mot motle na wala rendez-vous bi des na at walla ñaari at jigéen ñu wérul yi tamit ak ñi nga xam ne ñu ngi doog a am doom ñoom tamit war nañu topp ces rendez ki nga xam ne jigéen bi woon na lor war na def lu ñuy woowee consultation prénatale ki nga xam ne tamit dafa am doom kooku tamit war na def consultation li ñu woowee consultation postnatale mu nemmeeku yaramam ministère de la santé et de l'action sociale muy leen di sant di leen gërëm wasalaam